monsieur Momar Ndao ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Mm, maa ngi leen di fay. ma fàttali ni kon yow yaa njiital ASCOSEN kuréel gi eh, taxaw di aar ak ak yelleef woy jëfandiku yi. ci jamono mm. ji nga xamante ne kon ñëpp a ngi waajal lii di fetu eh, tabaski bi mu fekkoon tamit ngeen jibal benn proposition eh, jëm ci li nga xamante ne mooy xeex yokkute gi ñuy nemmeeku saa yu tabaski jibee ci njëgu xar yi ndax mun nga dikkaat mm. ci proposition boobu lan la. waa ñun proposition jàpp ne. war nañoo mun a euh, def li nga xamante ni bii euh, mooy peser xar yi pour déterminer seen prix yi parce que kii bu nekk ñu tudd euh, naka la tudd réew yi organisé wu yëpp seeni xar niñ koy jaayee mooy dañ koy jaay au poids duñ ko jaay donc ci waxaale. Mhm. parce que tout simplement waxaale du du loo xam ne dina tax mu protéger intérêt ñi nga xam ne mooy intérêt consommateur yi. Euh, loolu moo tax ñun ñu wax ni il faut que ñu koy def poids par pois comme ni ko réew yu mag yëpp di defee pour loolu nag dañuy def kuréel goo xam ne ci biir dañuy jël ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, sàmmkat yi jël consommateurs yi jël ministère de l'élevage jël ministère de la santé jël ñëpp ñi nga xamante ne bi dañu am ay action ci biir loolu bu boobaa nag ñooñu ci seen bopp nag ñoom ñooy euh, xayma ne xar moo xam ne talaa biir la wala pël-pël la wala xaru yar la wala xar bu mel nii et cetera et cetera buñ koy jaay ñu d'accord ne xar bu toll nii ñaata lay jar ñu ne soixante mille suñ ko jëlee teg ko ci bascule bi pesé ko mu nekk kon di kilo ñu ne kon six mille francs le kilo la façon xar boobu di jar ak bu melokaanam mel noonu donc loolu mun nañ ko def pour xar bu nekk type xar de type de xar bu nekk moo xam xaru coggal moo xam xaru yar moo xam façon yi xar bu nekk mën nañoo déterminer li nga xam ne moom mooy prix au poids su ko defee ki nga xam ne moom mooy borom xar mi du perte mais ki nga xamante ni bii tamit moom mooy euh, euh, consommateur bi moom tamit du perte te je pense que loolu lu am solo la. ndax proposition boobu ba ngeen ko jibalee am ngeen ci retour maanaam dogalub euh, gouvernement bi. waaw am nañ ci retour ci bon wax nañ ko ministre de l' élevage mu naan waaw dinañ ko étudier ak yooyu président éleveurs yi nee na non ñoom loolu moom nekkut loo xam ne leer na ci ñoom et cetera donc mu nekk loo xam ne daal Euh, euh, lu bidaar la daal pour ñoom bon donc je ne comprends pas mhm. ndax yaakaar nga dans le temps ñu mën ko nangu. Mhm. ah waaw yaakaar naa ne buñ ñu ko expliquer ba mu leer mun na mun na mun na nekk loo xam ne dina leer ci ñoom. lu moy nag way jëfandiku yi muy kon euh, clients yi ci seen wàllu bopp ndax ñoom ngeen di taxaw ndax xalaat ngeen ji tamit intérêt éleveurs yi ci seen wallu bopp. waaw waaw bon je pense que intérêt éleveurs yi dinañ ko jël en charge parce que éleveur bi. moom fexe nañ fexe ba li muy jaayee xaram bi nekk loo xam ne njëggu jaadu la su boobaa dinañ ko mun a dinañ ko mun a toppatoo. Hmm. beneen nemmeeku bi ñu def ci jamono yi fête yi ñu toll muy tamit yokkute njëgu yenn yi lu ci mel ni kon pomme de terre bi soble bi ak yeneen ñu faral di ko soxla ci jour fête bi loolu ban mhm. explication ngeen ci am ci yooyu lay yokkute ñuy nemmeeku. waaw soble yi nag moom waruñ koy yokk parce que man li ma jaaxal. mooy lan moo tax ministre bi nga xam ne mooy ministre du commerce nanguwu la def li nga xam ne mooy arrêté il a fallu que président de la république ci boppam tapé sur la table pour que ñu nangoo def arrêté te loolu du yoon loolu jàpp nañ ne loo xam ne la c'est pas normal donc euh, finalement def na arrêté bi defee arrêté itam quatre cent francs le kilo la bind mais ba léegi itam nit ñi respecté wuñ ko pour soble ak pombiteer yëpp quatre cent francs le kilo la wax à ce moment là gis nañ ne njëg yi daal romb na loolu donc war na génnee ñi nga xam ne ñooy agent yi pour que ñu def li nga xamante ne bi moom mooy verbaliser képp koo xam ne euh, respecté li nga xam ne mooy norme bi ci loolu moo tax ñuy waxaat ci ñàkk suivi bi ak euh, ñàkk daan yi nga xamante dañ koy def ñi nga xamante ñooy dumo yu yooyu lay arrêté ba xam loolu tamit bokkul ci luy gën a sonal euh, askanub Sénégal waaw bien sûr ñàkk suivi bi parce que bu fekkee ne yow ministère bi nga xam ne ñoom ñoo war a euh, topp ñi nga xam ne respecté wuñu yoon mu teg ci leen ci yoon su fekkee ne euh, papier bi nga xam ne moom la ko moom la war a bind muy arrêté bi nga xam ne su ko defee dina tax mu mun a teg nit ci yoon nangu ko bind ba président de la république leen ko forcer kon ça veut dire que donc liggéey bi ñu war a def defuñ ko ni ko war a defee. ndax yéen tamit waa seen di ngeen ci euh, def. xaar ci seen tànk tubéy ci li nga xamante ne mooy dénonciation ak yeneen xeetu taxawaay. waaw waaw ñun non seulement euh, dañuy def dénonciation mais fépp foo xam ne xam nañ ne buñ fa waxee euh, ñu mun li nga xam ne moom lañ bëgg ñu ngi koy ñu ngi koy def di fa di waxtaan ak ñoom. beneen mbir mm-hmm. ci jamono yi ñu toll mooy kon wàllub euh, opérateur téléphone yi ñenn ci ñoom am lu ñu yokk ci seen i njëg ba sax ñu bëri ci ay kuréel di xëy di ko ŋàññ loolu ban jàngat nga ci am yow mi jiite Ascosen waaw ñun jàngat biñ ci am rek mooy ne wax dëgg yàlla euh, Sonatel Orange moom euh, daf ñoo daf ñoo yab waaw lu tax Sonatel Orange yab ñu mooy amuñ droit euh, vraiment ci ñu toll fii ci mbas mi ñoom ñu nekk di lijjanti ni ñu amee xaalis bàyyi ñi nga xamante ne bii ñooy Sénégalais yi ci mbas mi te ñëpp xam ne ñu mbas bu jotee liggéey bi nga xam ne moom la nit ñi di liggéey pour mu gën a dox fi muy basé mooy wax dëgg yàlla ci li nga xamante ne bii moom mooy euh, li ñuy wax euh, euh, jumtukaayu xarala yi kon nag bu fekkee jumtukaayu xarala yooyu la ñu war a utiliser mun a def ci laxas jaan ah day indi ay jafe-jafe yoo xam ne du du kenn du ko mun a nangu. Hmm. gis nañu tamit ba ñu annoncé euh, tarif yu bees yooyu bëri na ay kuréel yiy jog euh, di ko ŋàññ di sax amal ay ndaje ak taskatu xibaar di woote ay journée boycott waaye organisation bu ñu am daanaka dayo bi tolluñu ko ci ASCOSEN te yéen tamit mu mel ni déggaguñ leen bu baax ci mbir mi lu ko waral. waa ñun ñoo njëkk a wax ci mbir mi ñun li ñu wax rek mooy mbéjum kanam borom a koy képp koo xam ne euh, gis nga ne lii nga xam ne moom la la Sonatel bëgg a teg Sonatel Orange. Euh, neexu la nanga nga bàyyi Sonatel Orange jógee fa dem ci beneen opérateur ndax tey jii loolu yoon may na la nga dem ci beneen opérateur su ko defee euh, bu boobaa li nga xam ne moom mooy euh, sa numéro danga koy conserver donc ku lamb yaa tey daagul fañ la nobee loolu lañ wax ni jamonoy mbas mi ñu toll fegg kon fetu tabaski bi est-ce que seen ban taxawaay lay sàkku ci way jëfandiku yi. waaw li ñuy li ñuy taxa ci way jëfandiku yi mooy. nañ takk seen masque ba pare respecter distance yi c'est très important ndax loolu rek moo mën a wàññi tasaaro bi nga xam ne euh, ki kii baa ngi koy tasaaroo ci réew mi feebar bi. mais gisoon nañu jëloon nañu mesure sax ci marché yi lu ci mel ni mu am bis buñ koy teej ngir kon ñu nettoyé ko waaye tamit sol masque ak kon règle de distanciation yi léegi mu mel ni ah, gis nañu safaan wa ci marché yu bëri ba xam asko seen jàngat boobu la def. waaw xam nga euh, ah, euh, moom wax dëgg yàlla njëg yi moom ci marché yi moom seer na ndax euh, li mu waroon a doon dañ koy yokk li daan sax may sens nit ñi mooy bu gaa yi yokkaan ñu dem ci supermarché yi jënd waaye wax dëgg yàlla njëg yi fi ñu toll nii actuellement daal dafa xaw a jéggi dayoo. Mar Ndao ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi leen di sant. ma fàttali yaa nekkoon ganu matinal bu Rewmi FM nga jiite Ascosen. jërëjëf.